aseex mutar loone li yónneen dootulam ci ginnaawam mboot la leñtul ba xam dey baa dangay gësu mootam wax jaag ma di yokk isaab nga xam wayam ba nga laajte bu koy jomba libaas neena fa yonnen tabaasu mi dalam wa. borom mo ñewat sol peer ba topat ca tankam ba libaas ñu nëbb isa mi doon am dem na lëndëm des buru woon nag ma njoon mi xambatal ba omar lanu xàllal yon mu ñew fete o di set ku jup ak ku samul diine te yàq dénkam ba Seydina Mandione laay yaram ba dem na ku yaa di soppeem yaa ko noppal ku dëng yaa ko jaaxal ngi rek day bañ nga feeroog merum buur ba Mandione yaay ki xam duniya bi ngay wutu Kumat kon ñu saawaatoo ba tey sidina manjon, njoon ñun danoo jaaxle ngir demuk sidina isa ku kay palam tu ngir ga jaaxle gu am boba sidina manjon lay, nga ñew andak sak mat ni teg ko xool duniyaaw ba xàmmee la nax téyal ko booleeg digaar toj ba sidina ma ñoon danga doy lu moo doy nga yàlla ak mbindeef fi ngir danga fekk nit ñi door xër ngir di ut jal yónne nee na ginnaaw isa yónne nee na gannaaw isa la nit ñi door ci duniya te duniya ay di yees tey wara kon ba ki war duniya lu jiitug waram loolaay la seydi manjoon dinkaane nan sàmma dénkam mbaa seydina manjoon laay ku min sab jotaay tey déglu say wax mu xam ni yaay ku mat ci mbindee fiib sàmm yaay ki yayoo yan taxaw loo ni fi yal na yàlla may tawféex defal ñu ndimbal nangul ñu bi jaay yonentam ba salallahu ala xayri daayi ilayhi hidaaya iman sarmadan fi ali wa kulli man sahba